waaw Boy Niang 2 gars yi déglu leen ñu waxtaan ak Boy Niang 2 ñu saafanteeg moom dem ñibbi Boy Niang 2 nous sommes à 5 jours du combat est-ce que mën nañu xam Boy Niang 2 hectare Boy Niang 2 yow la ñuy waxal. Ah, koy seetaan li ñu nuyoo doomu Pikine ñëpp a ngi taxaw dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñi lay seetaan su paree ñu jox suñu doyen Iba Kane mu wax ak yow. waaw asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla di sant ñu ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh Cheikh Cheikh Abi di nuyu waa kër Cheikh Wuldu yëpp fépp fu sëb Cheikh Cheikh bu nekk rek ñu lay nuyu bu baax di la jox sa cër ak sa wàccuwaay. waaw yéen journaliste yi aussi ñu ngi ñu ngi yokk jégalu rek waaw ku ci nekk ak xol bi ngay demee rek moo tax mais ñu ngi yokk jégalu ah waaw di nuyu képp ku teew fi di doomu Pikine maa ngi nuyu doomu Pikine waaye Ousseyn yaa ngi doom mbokk mën nga mais su ma demee ëmbal seen rek dafa yóbbaale ñëpp parce que moom mooy suñu mag ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi yi toog ñu teew yëpp di mel ni Isaaxa ku mel ni Thierno Ndom sunu grand chef de quartier bi ñu nekk nii di rakk ci Thierno Ndom ba ñu koy nuyu bu baax a baax sama grand Ibrahima maa lay nuyu autorité yi nekkoon ci ku ci nekk boo ñaan nuyu ne la jox la sa cër ak sa wàccuwaay ak doomu Pikine yi fi ne doomu Pikine wu ñëw yëpp maa ngi leen di nuyu président di leen jox seen wàccuwaay ah Boy Niang 2 nan nga gisee mobilisation tey bii nga xam ne point de presse mooy nii gëj nañu ko gis nan nga ko gisee. waaw damay sant yàlla bu baax rek Pikine ñoom chaque jour rek dañ may boo ñaa fu mu toll ci Pikine dañ gën a wan responsabilité bi ñu may jox muy drapeau Pikine moo war ko yóbbu di xeexal bu mënti doon tey wanaan nañ yàlla bu baax a baax déer remercié leen wax ñu xam ni borom jom lañ jox drapeau bi borom fu la borom faana incha allah lu mett di leen ci am ndam rek ci kàttanu yàlla incha allah léegi booy ñaa booy ñaa ku ne xam na ni booy ñaa ku ne xam na ni yaa ngi jëm ci bés bu mag ku ne xam na ni yaa ngi dajeeg un très keroog bi ma ko seeti jee dégg nga li ma wax ak moom boo ñaa ñu gis ni keroog sa adversaire dafa wàññi poids ba mu bari pare pour doon benn athlète pour mën a jàkkaarloog yow pour xeex ak yow est-ce que yaa ngi pare loolu est-ce que ngi bàyyi xel bés boobu est-ce que ngi bàyyi xel sa adversaire waaw sant yàlla bu baax a ñun moom boo xoolee ñun focalisé wuñu la fekk dafa yokk poids wala dafa wàññi poids ñun lu ñu focalisé muy lu liggéey ak lu ñu gëm loolu la ñu focalisé te liggéey nañu bu baax a baax a baax ànd nañu ñi ñu war a àndal liggéey na nu mu ko waree te bu jour ba incha allah dañ war a luñ liggéey ci kàttanu yàlla waaye le fait que moom dafa wàññi poids wala dafa yokk poids loolu moom la concerné incha allah. foo ñaata ñaari combat la benn def ku ne xam na ni da nga jël ñaari avance extraordinaire Tapha Tine dëgg la moo ci taxaw mais sa morom ci àll ba nii mu ngi def am sécurité ak Tapha Tine te wax ba mu la taxaw maanaam maanaam la la waaw loolu wax ju yàqu loolu ay waxu toog sa néeg la añ ba pare teg loolu wax ju yàqu la man Boy Niang bu nekk xale jaar bu ñu jaar ci làmb ak ñu mu bëreel am fula am fayda ci muy def nga wax da ngay puus da ngay wax loolu neex rek ñun kenn duñu puusoo ñu ñëw xool bu ñu neex ñu puus bu ñu neexul duñu puus ñun ay doom pigit lañ daga duñ loolu ak ku mën ci doon comme ni ko waxee comme ñaari avance waaye ma reeral leen yéen presque dañoo ñaari avance waaye benn boo déggee ma wax leen loolu mooy dafa am man benn combat la am benn combat laa nekk di préparé te benn combat moom ma ñor te incha allah li ci kanam raw du bët dama bëgg ci kàttanu yàlla moom laay ñaan suñu borom moom yor ndam mu may ñu ndam mais dama bëgg bu combat bi jeexee ma ne Tapha Tine bu ñu laalee ñu jëflante ba pare moonu làmb ñu gën a xam kan mooy Boy Niang. Boy Niang moonu làmb ak supporteru làmb ak ñuy bëgg làmb ñu gën a xam kan mooy Boy Niang. Boy Niang bi dañ Boy Niang maa ngi lay nuyu ku ne xam na ne dimanche yow yaa war a dalal tafaati ndax yaa ko gën a jege stade naka ngeen waajalee si fair ku ne xam na ne làmb ji jamono ji lu mu demee naka nga waajalee ak sa si fair parce que yow yaa la war a dalal tafaati parce que yaa ko gën a jege stade te ñëpp xam nañ en tant qu'ambassadeur pour la non violence mais aussi en tant que mbër làmb mooy suñu gagne-pain ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay damay woo képp koo xamante ni supporteru Boy Niang nga képp càppaacoli foo mënta nekk ñu ñëw ci yar ak teggin ñu ñoo leen dalal ñu li ñu war a def mooy ñu duy stade bi mu fees ci yar ak teggin bu wekkee yëngal wala xeex wala dóor wala bëre loolu ñu bàyyi koog seen mbël ci biir géej incha allah ci kàddu mais Boy Niang Boy Niang mais xeexkat la sa adversaire ku ko xam xam ni xeexkat la seetaan nga digganteem ak Elton seetaan nga digganteem ak Bombardier est-ce que yaa ngi pare xeex boobu ba pare ñu gis ni Boy Niang dafa wàññi poids ci combat bi. non wàññi mu poids de dama jël sama poids de forme sama poids de loo xamante ni sama bët lu ma may yaram def ko mooy sama poids loolu laa am moom laa bëre woon contre Sa sant yàlla kon Lac de Guiers gis nañ ni dafa yokku ma def ni waa li ma amoon jël ko téye ko parce que loolu laa moom mooy sama yëf beneen bi mooy xeex wax naa leen naa leen yéen ngi ci tafaale xeex waaye moomu ko waaw loolu nag waxuma ko parce que dama taxaw fi ngeen dëpp ma ay micro a ngi ci tafaale xeex waaye moomu ko man benn poids ru yàgg ma ku ma am na fu mu fuñ jaar ma ak yow ak ku mën ci doon xeex ak benn mbër ci arène bi ku bëgg ñu weccoo xeex rek benn problème. boo ñaata Tapha Tine mënul boo ñaata Tapha Tine laa baax xeex mais ñëpp xam nañ ne loxo dafa ñëw xeex mo bu ñu ko dee définir xam la mooy xeex précision xam bu baax koy dóor loolu mooy xeex nekkuma rek damaa yor ay loxo di sànni ay kóode déedéet damay am précision xam bu baax koy dóor loolu mooy xeex te yàlla def na te yàlla def na te yàlla def na ba ñu nekk xale ba léegi jàng nañ ko dem ci ABC jàng ko ba moo ko sant yàlla bu baax a baax doomu tamit bu bëggee ñu xeex rek dañuy xeex yàlla xam na moo daan joxal moo daan joxal moo waaw loolu wax day wax lu ko neex mooy Pape Lambaye Pape la bokk maa ngi nuyu ñoom sax jël faj faaw ñoom Thier sama gànnaay nekk foofu loolu moom waxtu yàqu la loolu amul problème su fekkee ci sens nag bu ñu xoolee ci làmb Tapha Tine maa ko may sens bu ñu xoolee ci làmb moom a jiitu ci làmb dëgg la waaye fii ñu bëree maa moom maa ko may sens noo ko que gars yi kenn bu ko woon jël fi la ko gars yi bàyyi ma may ko sens ba rek moom ah? ci ci niveau làmb ci yàlla waaye yàlla yàlla xeeb doole am na fu ma yegg foo xam maa ngi sant dernière question pour si pour. boo xoolee ci làmb man maa ko may chance. waaye may chance ñàkk may chance yooyu yëpp ci làmb ji comme li ma wax mooy maam moom adul si la gën ñu jëflante bu baax a baax ñëpp kontaan incha allah. yaat ma seen i news yaat ma seen i news mu gaaw waay ah. waaw moom làmb moom. da koy moo am rek. làmb moom am rek. bët bi da nga koy jëli bët bi nga daje moom bët bi mu jël si la am. waaye dafa ñun boo xoolee. wala Ousseyn mu ñëw nii. am suñu papa maam Diop am sama papa Pape Diop Basson am sama papa Pierre de am sama papa Pala. am sama papa am sama papa am ñoo xamante ni ñoo ma yar ci làmb donc nag li ñuy yóbbu ci géew ba nag loolu la kooteel nag suñuy bagage bopp la. loolu bàyyi leen ko muy booy ñaa nag ñu tàmbaloon sa combat Sa Thiès nga ne bu jeexee jeex na contre Tapha Tine la lan mooy slogan waaw war naa leen ko nee naa la ñool taab bi moo gën gësam. ñool taab moo gën gësam. Ah. waaw ñool taab bi moo gën gësam. même mango bu bu ñool taab bi boppam lekk koo gën neex boo gësam mu wadd combat dem jëli Mansour Diop indi ko. non non Mansour Diop du jëli kii sama papa la. waaw boo xoolee Mansour Diop ak Dégol. Dégol dem na sax dañ koy wax Dégol Diop ndax Mansour Diop ak ñoom Pape Diop Boston. waaw donc loolu démb la daal ñu ñoo ma ñoo ma yar donc su ma amee bis nag fépp fu ñu nekk dañu mën a ñëw toog. muy Lamine Koor balaa may jàllale maa ngi maa ngi jégalu encore kii taxaw na lu si ginnaaw yàlla waaw di jégalu bu baax a baax a dernière question dernière question. dernière question dernière question.